site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko ci contexte mooy euh, forum civil ak euh, partenaire am bi ñu woowee Oxfam dafay di sillonner euh, Sénégal dafay wër Sénégal pour jëm a fexe naka lay jàppale journalistes pour ñu xam ñu xam ci wàllu secteur extractif ñu xam ci wàllu mine xam également ci wàllu pétrole wàllu wàllu gaz. ci loolu nag ci njàppandalu convention des reporters du Sénégal def nañ ko ca Fatick def nañ ko ci Dakar <coughs> def nañ ko également ci suis tey jii nii ci njàppandalu coordonnatrice su convention de reporters fii ci Fatick de Aminata c'est natango Nous ngi tenir une session de renforcement de capacité ci analyse de données Madame, nous avons fait pour que journaliste bi mën aller à la bonne source pour que a xam fan lay sur information pétrole et le gaz fan lay jëlee information ci wàllu mine bu ko jotee ba pare Nous la exploiter ci fonds yi ci contenu local vois les ressources tu vois le contrat les obligation yi nga a journaliste surtout li ñu externalité négative bu pétrole communauté la population journaliste vous bu du terrain en tout cas bu une formation bi bu terrain bi na traiter pêche comme nous dans pêche traiter environnement comme nous traiter environnement day est-ce que installation bi de installé plateforme bi au niveau de Sangomar ndax amul tu ci walu pêche ndax amul tu ci walu santé ndax amul tu ci walu social ndax amul njeexital ci walu environnement. mo waral tay session de formation bi nga xam dañ ko tourner autour de l'analyse des données il y a ci analyse des données dañoo dem wan leen ci walu ressources yi le Sénégal mën a ci walu ressources mais japp nañ également buñu ñu fini euh, journaliste nañ def euh, liggéey bu mucc ayib. waaw ci wàllu joxe information ci wàllu secteur extractif des na des ci côté journaliste yi bari Nam, am journaliste xam nañ bu baax wàllu secteur extractif ñii tey mun naa ay expert lañ ci ñii dañuy former mais bari na si ay journalistes également yo xam information bi euh, sur wàllu secteur extractif am na lu bari lu ñu ci xamul bokk na également ci wàllu ci ci fay fi, ci Fatick am na ñoo xam mais ci li ci ëpp également xamuñu naka nañu traité information ci wàllu secteur extractif le forum civil nous avons na convention de reporters Nous avons une l'instant sant ci mobiliser les journalistes Nous avons wax information la bonne information pour que nous puissions ci euh, au bénéfice des populations Les naa journalistes yu fatigué un dañoo am rôle pour jouer parce que la plateforme Sangomar fait la nek souvent dans les débats, journalistes sont dans localité di di di documents des enquêtes des reportages des chroniques ci seen

de mën indépendants, je n'ai ici, de pour dire la bonne information ba nga xam du ministre encore une fois